dafa initier tournée bi ak euh, ndimbalu association des meuniers industriels du Sénégal en collaboration avec euh, FNBS ak ARBS so soxal euh, tournée bi mooy moderniser secteur boulangerie parce que nañ daan defaree mburu bu njëkk ba nañ ko daan transporter mënatul nekk en deux mille vingt donc boo gisee loolu. ñu bëgg a moderniser secteur bi modernisation boobu parce que dafa nekk nag secteur bu am solo la aussi buy participer trois pour cent du PIB am 500 milliards de chiffre d'affaires par an donc euh, doo secteur bu ndaw donc assainissement bi soo gisee li nga xam ne moom la wund mooy dana alléger charge de production et de distribution yi nga xam ne moom la boulanger yi doon def secteur bi aussi ku ne gis ci sa bopp ensuite mu créer emploi parce que dana nekk pour surtout les jeunes ensuite défendre aussi intérêt consommateur yi nga xam ne ñoom ñoo koy lekk nit ñi mën di lekk mburu mu sell mu baax waaw ñun am nañ ci rôle bu am solo tamit euh, réglementation bi ñëw na ci bu baax sax bu baax a baax a baax parce que norme sénégalaise bi ñëw na kon loolu lépp euh, da ci am rôle bum ci ciy beneen bi mooy am na euh, li ñuy wax condition de production bi fi ñu war a produire mburu bi fi ñu war a produire euh, transporter mburu mi maanaam condition de transport yi ak condition de vente loolu lépp ñëw nañ ci ak même kii liggéey nan la war a mel ak cetam ay weewam ay yéreem mbaxana euh, ba ci ay visite médicale loolu lépp ñëw nañ ci léegi nag liggéey bu ñu continuer la processus la di ci jàngale tamit yi état war nañu ci accompagner ay partenaires techniques pour que formation bi tamit dem ci vole boobu ni ñu war a former euh, patron boulanger yi noonu la ñu war a former ouvrier yi pour que ñoom tamit ñu xam ni rôle bi bu am importance la ñoom parce que patron boulanger bi mën na wuti ay euh, tenue mën na wut lu nekk mën na wut casque mais bu ouvrier bi dul appliquer parfois ça fait défaut kon foofu dañuy inviter ouvrier yi ñu jàppale ñu pour ñu mën a sàmm suñu métier.